asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi bu baax di leen wax ngeen dal jàmm sur sport 221 kuy gàtt ci page bi liñ ñaan mooy nga abonné nga activé cloche bi bu leen ko di fàtte bu la ñu ci liggéey bi li ngeen mën a def mooy di liker c'est très important. ñu tàmbaleeg ak technicien portugais bi nga xam ne mooy José Mourinho moom dong de foofee ci Europe kat moo gàddu ñetti raay yi di Ligue des champions Ligue Europa ak li nga xam mooy Ligue Conférence ci noonee Netflix kat ñoom ñu ngi ci yoonu kat defaral ko benn documentaire bi am dafay retracer carrière am jaar jaaram loolee vraiment mérité ko ndax mooy fekk club bi am kenn du ko foogee mu def dem fa voilà amal fa ay jaloore bu ci mujj mooy AS Roma. kon documentaire boobee du yàgg ndax commencé nañ ko réaliser avec le spécial one. 19e journée bu Liga espagnol bi doon nañ ko wéyale sa jour di ci noonee kat Osasuna mooy daan club bu Jon Lopy bi kon Almeria kat. ci vingt et unième siècle bi kat ñoom ñoo gën a bon lay ndorteel saison foofee ci liga espagnole bi ndax kat cinq points dong de lañ am jàpp leen bu baax voilà. amaguñu nag benn victoire ek joonte nañ 19 match ek jàpp leen nag ki nga xam ne mooy John Lopin am ngi jafe waaye saay bu duggee wane boppam seen joone bi ñoon bi ñoon amal contour contour Osasuna moom kan mooy joueur bi nga xam ne moo fa gën baax lay performance 41 sur 45 passes réussies mooy 91 pour cent passe en profondeur toi sur toi pour indiquer rien à dire. Ernesto Valverde bu ñu boolee match bi foofee ci Liga nag voilà amoon na 500e match am cette fois-ci avec club bi mooy Atlético baaw ñu fekki Séville daan leen ñaari bal ci dara kon jàpp leen moom mais moom lañ tabboon nag euh, meilleur entraîneur ci mois bu génn nii. ñu ngi réalisé seen meilleure saison nag depuis 1983 ndax ci 19 match yi ñu jot a joonte am nañ ci 38 points. bu fekkee Séville de Ramos bi nga xam ne ginnaaw gi jon def sax yëkkati na ay kaddu di ñaax supporter bu ko defee kat ñu bàyyi sànni xeer yi nga xam ne ñu koy def ndax loolee kat du leen yokku dara motivation ñoom jàpp leen kat ñàkk nañ ci 19 match yooyee 9 et que nag gëj nañ ko gis nag depuis saison 1999 ak 2000 ndax kat jàpp leen les Andalouses comme nañ leen di dëppalee kat ñetti ndam lañ am en autant de match foofee ci Liga. club bi nga xam ne ñu ngi wéyle seen yoon mooy Girona jàpp leen ba club catalan boobee Marca moo def jàngat bi mu mu comparé leen ak Leicester bu atum 2016 ndax bom ba muy ñëw kenn foogeewu ko woon Leicester de N'Golo de ki nga xam ne moom mooy euh, Mahrez jàpp leen voilà ci at boobee les sœurs bañ jogante 19e journée ñoo ne woon ci ñaareelu toogu bi avec 39 points actuellement nag Girona ginnaaw bañ jogante 19 match foofee ci Liga espagnole bi ñooy deuxième même nombre de points que les merengue ndax am nañ 48 points ndax mën nañu créer surprise loole kat. fin saison bi lépp dina leer club biir mooy barça joon las palmas jàpp leen bu las palmas sax moo njëkk lakk ya à la minute par el adadi waaye il fallait compter sur la détermination des catalans ñoom nag ñu revenir ko grâce à Torres à la 56e minute Gundogan kat dugal ñaareelu bii bi leen may ndam à la 83e minute et que ñi ngi fësal ca classement ba barça ñi ngi bi à 41 points kon Real ak Girona juróom-ñaari poñ lañ leen rawee ci classement ba foofee ca France ñu utali fa ndax kat wàllum jënd ak jaay la ñuy àddu kii nga xam ne mooy kërër bi am daana doxal foofee ca Paris Saint-Germain mais actuellement joueur bu West Ham la kon les Hammers ñoom abale na nga foofee ca Monaco rek Krépin Diatta Ismaïla Jacob ba fin de la saison comme ni niñ ko fësalee moom nag amal na li nga xam ne nag mooy visite médicale bi kon li ci des dong de mooy ñu officialiser abal bi nga xam ne club bu anglais boobee jébbal na leen ko. brésilien benn mooy Bruno Guimarães jàppale ne nañ ak priorité la pour club parisien bi nga xam ne bëgg nañ ko ci mercato bi waaye clause bu l'international brésilien boobee nag fixé nañ ko ci cent quinze millions d'euros et que Cherbourg bi nga xam ne am nay jafe-jafe nag foofee ca foofee ca Paris kon ñoom ñu ngi ci yoon ak abale ko. bu ko defee mu am prise de temps de jeu ndax kat Paris xam nañ benn joueur bu am talent la club bi mooy Braga ak Besiktas ñu ngi ci ginnaawam. et que nattangoom bi mooy millionnaire Krishna Yade jàpp leen baax moom dafa amee gaañu gaañ seen jon bu kat bi ñoon amal contre Toulouse mooy trophée des champions ñoom sax ñoo ko gàddu woon kon ñu ngi ragal kat mu forfait li des ci saison bi bu ñu sukkandikoo ci ci xibaar yi George Mikartar jàppaleen bu baax mom delluwaat wana foofee ca Metz jour bu Georgien boobee Georgien boobee laay wax sax jàppaleen club bi nga xam ne mooy Ajax moom moo ko jëndoon waaye doxalu fa nag lu mucc ay ba tax naka dafay delluwaat foofee ca Metz ñu abaleen ko ek nag dugal na ci wàllum option d'achat bu 10 millions d'euros bu fekkee wane na fa boppam doxal bu baax mu daal seen xel mën nañ ko fay club bu néerlandais Tino Kadewere kii moom nag jóge na foofee ci Olympique euh, Lyon ñu prêté ko foofee ci FC Nantes et que nag euh, yokku na ci benn clause libératoire bi nga xam ne vraiment nag bu fekkee doxoon na fa yenn ci ay match dañ koy lever. Bruno Genesio lay uyoo jàpp leen bu baax xam nga ne moom mooy yoroon club bi nga xam ne mooy Rennes et sax yoroon na club bu ci mën a Dortmund waaye actuellement dañ ko dàqoon foofee ci stade ne kon nag euh, li ñu fësaloon mooy que Besiktas bëggoon na ko lool waaye moom moo leen gàntal nee na dafay jël temps réfléchir laata muy muy jël benn ndogal ci carrière am. gay laata ñuy wéy la jàppale ki nga xam ne mooy euh, Cancelo moom kat seen jom bu ñu am kon Las Palmas dafa may gaañu gaañu kon ki nga xam ne kat moom mooy Xavi mu ne blessure bi nag euh, ci zone bi la waaye nag moom lim jàpp nag mooy que garawul noonee. waaye dinañ xel boo xam staff médical bu club catalan bi la lañuy àddu ci défenseur portugais bi. booy soxnikoo ci Sky Sport moom mel mooy Anthony Martial mi ngi coono xaatimal contrat bu bees avec Manchester United. joueur anglais bi nga ne mooy Jed Spence jàpp leen bu baax Tottenham ñoo ko abaloon foofee ci Leeds United waaye dañuy mujj dakkal contrat bi doxul seen diggante kon dafay delluwaat ci club bu Pape Matar bi Béni Traoré la yoo kon moom dafay utali foofee ci Nantes waa Leeds United waa Sheffield United normalement ñoom ñoo ko abal ba saison bi jeex benn joueur ivoirien la. Jacques Stephen quitté na xam ngeen ne club bi mooy Manchester City utali foofee ci Colorado ek xaatim na fa contrat buy dem ba 2026. et que ci Premier League bi Crystal Palace Everton ñoom kat dañuy terminer sur le score nul et vierge li soxla 32e finale bu FA coupe bi kon dina am massi retour et que West Ham ñoom kat nenañ intéressé nañ pour jënd jour anglais bi moy Eric Dier Mohamed Salah nak mom, mi ngi ci wonu xaatimaal contrat club bi moy Liverpool pour sonu ko ci Anfield de Watson. Everton ñom nenañ nañ kat dinañ proposé ben contrat bu jeesee Lingard ba saison bi jeex tel sport mo fësal xibar boobee. Erling Haaland mu ne défenseur bi nga xam ne nag moo gën a coriace bi musul joxoon teg moom mooy Van Dijk ndax benn benn joueur la bi nga xam ne am na dayoo et nag voilà gaaw na lool benn joueur bu exceptionnel la comme ni mu ko yëkkatee ci ay kàddu Wataru moom lañ tabu jour bi gën a xarañ ci mois de décembre bii foofee ci Liverpool ginnaaw ngay performance ay bi mu fa wane moom miin mooy doomu bi le portier danois bi nga xam ne moom mooy. Kasper Schmeichel club bi mooy Sheffield United ñi ngi dina ci pexe xol ba xam nan lañ koy dalee buñ ko ci mel ek japp leen baax foot mercato mu ne Fulham Wolverhampton wala bok Lyon bëgg nañ loolu doomu Algérie bi wolu ñu ko ci kan bi muy Seydi Berdakhma. Premier League fësal nañ de jour yam ñom lañ nominé pour remporter jour bi gën xarañ ci mois bu décembre bi kon voilà juróom-ñett lañ ki ngeen moy Trent Alexandre arnold ci Liverpool. Matheus Cunha Volverantom, doomu Ghanéen bi Mohamed Kudus Michael Olise de Crystal Place, Cole Palmo Chelsea Argentin Marcos Senesi de Bournemouth Dominique Solanke Bournemouth et Heung-min Son Tottenham. bu fekkee ci walum coach yi nak ñent Emery ak naataango espagnol bi mooy Anthony Irola foofee ca Bayern moom moom mi nga xam ne depuis ba mu fa ñëwee mu ngi fay wane boppam ndax génn na ci zone de relégation bi Jurgen Klopp ca Liverpool ak doomu écossais bi ngeen mooy David Moyes de West Ham. depuis ndorteelu saison bi am nay jafe-jafe naam salué nañ bu baax baax clubam li mu def mooy ñu souhaité ko mu def kan bu mucc ayib avec les étalons bu waa Burkina Faso kooku moom mooy Bertrand Traoré ci noonee kat voilà buñ moyul kat dina quitté club bu Unai Emery bi cet hiver. lépp mu ngi ci yoonu yemb buñ soxandikoo ci Fabrizio Romano doomu angale benn mooy Jadon Sancho Manchester United da koy avalee jàpp leen bu baax foofee ca Dortmund club bi nga xam ne sax fa la woon laataa muy utali ci Angleterre. club bu Cheikhou Kouyaté ak kiir mooy Moussa Niakhaté li daal Everton buñ moyul kat mën na leen daal ndax kat ñi ngi ruum naan ne kat wàllum régal fair play financier dañ kaa njuñ jaañ ndax xam ngeen ne mercato yi passé kat dindi nañ ay joueurs yu bawoo fu neex kon loolee ay koppar la est-ce que loolee voilà moom dëppoo ak euh, ak seen chiffre d'affaires jàpp leen bu baax si Athletic moo fësal xibaar bi buñ mayul kat buñ jàppee ne ñoom ñoo jalgati wàllum règle fair play financier dinañ leen wàññil ay points comme li dal club bu bi di Everton. et que liñ fësal moom mi nga xam ne mooy Onana bi nga xam ne mooy Manchester United ñu ngi ci jafe-jafe ci noonee kat leen bàyyi ci jafe-jafe yooyu ba tax moom dafa jël ndogal ne dina jonte 14 janvier seen match bi ñu war am amal contre Tottenham bu ci bawoo nag mu war doxal 15 janvier ak waa Cameroun est-ce que dina ko teg ci kaay waaye lu ci mënti am moom moo jël ndogal boobee rien que pour indi ndimbal ci club bu war a débrisé bi laata muy jonte ci kan boobe la ñuy desandi waa Algérie nag seen président dafa jël ndogal nekk deux cent su deux deux mille supporters yam ñoo nar a utali foofee ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp moo leen di jël en charge ek kaaf moom kat dafa dafa dafa gën a yéegal lii nga xam ne kat mooy neexal yi pour ki nga xam ne wala boog ñi nga xam ne ñoo gën a def ay jaloore ci kan boobee kon yokk nañ ko à 40 pour cent jàpp leen bu baax prime yooyee ki nga xam ne moo ko jël dina am plus de 4 milliards mooy que 6 virgule 4 millions d'euros deuxième bi lu jege 2 milliards de francs CFA et que demi-finaliste mooy que troisième place bi moom lu jege 2 virgule 28 millions d'euros quart de finale li si nag ñoom dinañ am 1 virgule 8 1 virgule 18 millions d'euros et que ñun xam ngeen ni voilà leen dong de la ñuy séntu mooy li ngeen mooy 4 milliards yi bu ko defee kat suñ gaynde iliwaan ñu raay bi ndax loole lañ leen di ñaanal. Assane Dia buy soxnikoo ci wiw sport jàppaleen ba club anglais bi mooy Brentford ñu ngi ci yoonu nag jënd ko ndax ñoom kat noppi nañ kat levé clause am bi ñu koy xamee ci 30 millions d'euros naam xaatim na fa contrat buy dem ba 2027 avec club boobu bi di Real Betis waaye bu ñu levé clause bi kat dina mën a utali foofee ci Angleterre bu laajee moom kat mi ngi yëkkati ay kàddu mu ne gaañu gaañum boobee kat mi ngi am tan bu baax a baax ek jàppale sax commencé na def wàllum vélo ku ci mën ni Nampalys Mendy moom toujours mi ngi à ndax mi ngi entraîné naw gis nañ ko ci image ku ci mën El Hadj Ousseynou ko ñëwagul ci groupe bi waaye ñu ngi leen séntu bu baax a baax ñu tane voilà suñ jonte yi foofee ca foofee ca Côte d'Ivoire et que nag ki nga xam mooy Boulaye Dia mi ngi wóolu ñëpp kat suñ jonte xarito ñu war a amal contre Niger ce 8 bu ko defee kat loolee mën a doon kat euh, voilà tàggatoo ci ñi nga xam ne dañu am possibilité hôtel yi foofee ci Côte d'Ivoire. posté que gulu mu yëkkati kàddu yi ci kenn mooy Pape Matar Sarr mu ne nag Pape Matar saar mi ngi am tan bu baax a baax ak loolee sax mooy tax ñu joxu ndigal mu utali ci équipe nationale la moom mi nga yëkkati woon ak kàddu ne dafa amee gaañoo ci show jambier yi waaye voilà problème bi kat newu woon foofee comme ni mu ko waxee woon. kon liñ doon ragal amul ndax Pape Matar Sarr gaañu gaañu boobee tax ko garaaw kon voilà ñu ngi koy moom sa ci tanière bi kon ñu koy xaar bu baax a baax ci onze de départ bi bu lépp yembe avec les lions de la Teranga foofee ci Côte d'Ivoire ñu gàddu raay bi indi ñu ko ci réew mi gaa ñeemale foofee xibaar ba beneen yoon sur cent sport 221